léegi série yi comme moo moo mooy doxal jamono <laughs> ci fan yi série yi daal moo tax ñuy waxtaan mooy tax ñuy xuloo mooy tax ñuy xeex mooy tax daal euh, euh, nit ñi di liggéey il faut que ñu jagleel ko benn événement événement bi nag euh, bien vrai que Sénégal initié wu ko bu ñëwee sunu dëkk nag professionnels yi dañ ci taqrib il faut que ñu bokk si parce que dañuy waxtaan dañuy lijjanti naka la ñu mën a def ba man ak waa Togo waa Benin waa Nigéria mën a jokkoo mën a liggéeyandoo dañuy waxtaan naka la ñu mën a def ba suñu acteurs yi euh, di tukki di dem di jouer ci yeneen yi série di ñëw dañuy waxtaan naka la ñu war a mën a intéresser structures yi entreprise privée yi ñu xool sunu série yi xam nañ ni ñoom itam mën nañ ci jàllale message ñu ñëw indi xaalis bu bari dañuy waxtaan naka la technicien yi mën a yokkee seen mën-mën ak seen xam-xam pour la simple raison que ñun ñu ngi tukki ñu ngi dem ci dëkku jàmbur yi di fa liggéey ñun technicien sénégalais yi mais surtout technicien boo xamante ni am na chance liggéey ci ñaari série wala ñetti série ci année bi loolu mooy année bi tous les jours dafay am xëy tous les jours dafay yeewu dem ci benn plateau yenn saay yi euh, mu mu ŋaarale sax di dem fii ak di dem ci beneen mais au moins am na am na demalante am na euh, am na jëf am na am na xaalis am na fay lu mu néew néew am na luy dugg am na luy génn loolu daal moo moo jot fi mu ne que nit ñi di liggéey euh, euh, di joxe seen ñaq ak di ci am lu ñu la seeni famille ak seeni mbokk